li may wax moom bariwul mooy journaliste bépp journaliste boo xam ne euh, waa kër Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko dina la tax ñàkk def sa liggéey nanga ko war a defee te yoon permettre la ko ma xam ne yàpp nga say waajur yàpp nga say mbokk waaye yàpp nga Sénégal xam nga lu tax. say waajur ba ñuy fay école wala bañ lay yeew suba teel di la sang di la fóotal di la dimbali di la faj ngay dem école di jàngi ba mën a nekk journaliste benn vaurien jóge fële ci àll bi ba ko ay waajuram di toppatoo ba mu nekk la mu nekk moom xamoo ko xamu la tey moom walla ak ay nitam war a mën a tax xañ la yow jàmm xañ la yow journaliste bi def sa liggéey ni mu war a defe ma xam ne nag war ngeen seen ndey war ngeen seen baay war ngeen seeni mbokk journaliste am leen fulla ak fayda ba ngeen di jàngi Macky Sall fekkewul fekkewuma Ousmane Sonko fekkewul ay mbaamam yi ma àndal fekkewuñu nit dangay am fulla ci sa métier ak sa liggéey onet nag honnête ba ñu nekk naa fekk di dox dégg di ko wax bu dee ci nguur gi ñoo nëw ci dëgg nga bind ko wax ko wax ko nanga ko war a waxee ak i teggin bu dee Ousmane Sonko ak ñi mu àndal nii ak wuy yi mu àndal ñoo nekku ci dëgg ngeen traité information ni ngeen ko war a traité bañ ci am lu ngeen ci tiit wa lu ngeen ci ragal ndax ba ngeen jàngi xamul Ousmane Sonko.